charte bii nga xam ne gars yi ñoo ngi koy wax ma ngi ci réew mi te charte la boo xam ne mu daal di koy respecté maanaam mooy di constitution bi Guy Marius Sagna daan nay wax ne Macky Sall ci boppam bu bëggee jàmm am ci réew bu respecté constitution bi rek maanaam jàmm dina am te benn jafe-jafe maanaam du am ci réew mi violence am ci réew mi ñoo lànk ñoo baña ñoom tamit ànduñu benn yoon ci charte bi la ko waral journal bi délégué ko moo xëy di ko leeral ndax gars yi nee nañu dañoo bëggoon ca charte boobu maanaam ñu dugal seen Macky mandat ci bopp réewum Sénégal gars yi daal leen moo tax ñi nga xam ne ñoo bokk ci collectif ñoo lànk dañoo mer ba futu daal di say lànk yéen kaay gi de ñu xëy fekk sa xët mu njëkk ba professeur Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum mbay mi muy leeral lu soxal wàllum jënd meek njaay mi nga xam ne ci gerte gi ni ko suba ci alxames ji lay door yéen kaay gi de la sa xëy di ne ñoom nag sonn nañu ba maara day taali ci ndox mu bon mi nga xam ne moom la ñuy naan nga xam ne nag ñooy waa seen ñoom bi ñu leen laajee yoon nekku ci seen ngañ nekku ci lépp nag wax leen ak waa BRT bi maanaam liggéey yéen a kaay gi di réew mi quotidien association femmes juristes yi ñoom nag nee nañu dañoo bëgg daal ab enquête bu leer nañ ci viol bi nga xam ne Fatima Miss Sénégal 2020 maanaam ma ngi koy wax journal bi xëy di ñu xibaar naan ñu am na kuréel koo xam ne ay jigéen ñi kese ñoo si nekk ñoom nag jóg nañu na sojet tey jii danañu dem ca tribunalum Dakar daal di fay déposer plainte collectif jëmale ko ci Amina Badiane mi nga xam ne moo jiite lépp lu soxal wàllum organiser Miss Sénégal journal bi nee na la nga xam ne moom la jigéen ñi di sàkko maanaam licence d'exploitation Miss Sénégal ñu daal di koy rocce yéen kaay gi di source nee na ñoom li leen jaaxal ci mbir mi daal mooy Alberta Diatta noppi gi nga xam ne noppi na ko ci mbir mi journal bi di Dakar Times xëy ci élection yi ak diwaanu Dakar journal bi nee na gis na ne candidat yi nekk ci wiilum Dakar ñoo ngi njaay cekkee di dragué lébu yi journal bi xëy di càmbara électoral lébu ci Dakar la toll ndax na consigne de vote do am yéen yi nga xam ne demul ci élection yi taxawul ba muy tuule sa la jëm ministre de l' intérieur daan nay déposé lu toll ci fukk ak benn ci ay recours ca cour suprême yéen a di Sud Quotidien nee na élection locale yi ak séego la waaye nag tension bi ma ngi mel ni male bu passé violence politique bi nga xam ne am na ci waaye nag jàppante bi am diggante préfet yi ak cour d' appel yi réew mi Quotidien activiste bi di Lamine Bara Diop ñu naan ko Diop Taïfa ni ki démb doon nañu ko lan la def yéen a kaay gi xëy di ko na moom Diop Taïf moom dafa jaaroon ci camp Abdou filmer ambulance yi nga xam ne moom lañ fa def yéene kaay gi nee na loolee moo tax ñu teg ko loxo atte nañu ko démb waaye nag doon na jéggal yéene kaay gi de la Tribune nee na yu bare bari ma ngi xaar procureur bu yees bi ak doyen des juges bu yees bi yéene kaay gi de Le Quotidien nee na doyen des juges bu yees bi di Maham Diallo moom nag ñoo ngi koy tuumal ne ko nag tombé war a ay gaaf wala lu xew coïncidence la wala lan maanaam xam ne ay jamono moom ñu koy ŋawtu ŋawti ca jamono jooje la ñu andiwaat Ousmane Diagne ana lan moo xewa journal bi xëy sampab laaj yéen kaay gi de la nee na Orange Money jamono ji maanaam wàcc na lool wàcc na ba gën a suufe ñi nga xam ne ñooy waa Wave ndax Wave seen commission bi un pour cent la woon Orange Money ñoom nag jamono ji ñoo ci zéro virgule huit pour cent yéen kaay gi nee na nag concurrence bi daal na gars yi kontaan ci concurrence bi nga xam ne am na ci diggante Orange Money ak waa Wave na concurrence boobee daal yàgg mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu tribunalum Ndakaaru niki démb toj na ndax dafa am benn waay boo xam ne dañu ko fa doon atte moom nag dafa amoon benn gel ñoom ñaar ba ñu demee ba bàyyante fekk waa ji amoon na vidéo boo xam ne moo xale bu jigéen bi ñoo sa nekkoon doon sim seen maringaan yi xale bu góor ba bi nekk jël vidéo ba daal di koy fësal ci réseaux sociaux yi atte nañu ko tëj nañ ko lu toll ci benn weeru kaso yéen kaay gi di libération xëy ci benn mafia pièce gi na gars yi daal dañu doon sàcc ay oto diggante Dakar Malicounda ak Sindia waaye bu ñu sàccee oto bi dafa am benn kër boo xam ne fa ñu ko doon denc sa sinj daal di koy def pièce détachée bu ñu ko jëlee nag benn waay bu siiw boo xam ne bu nekk di foncé ci dakaar moom lañ ko doon jox mu ko doon jaayaata waa ji Tony la tudd ab receleur la yéen a kaay gi di record xëy ci Ligue des champions nee na ma ngi ci danger Manchester City ak Paris Saint-Germain tey jii ñu laale ngir dañuy xëccoo première place bi yéen a gi nee na sunu gaynde yi nga xam ne seen dégg-dégg te ñu jël coupe d'Afrique bi Macky Sall njiitu réew mi recevoir na leen may na leen lu toll ci deux cent vingt millions. Sénégal Matin.